ñi nga xam ne ñoo féetee booru Kër Mousse ak ñi féete booru Kër jas impasse yi ñu leen di fay population bi nee na lu benn ñu féete côté Kër Mousse ñoo ëppale ñu féete côté jas may laaj ndax loolu lu ko waral lan la te xam naa ne dinaa ci am tontu monsieur le ministre taxe yi nga xamante ne nii dañ koo seetlu woon ci aéroport bi nga xam ne moo doon aéroport euh, bu dakaar si 800 hectares defe le la toll seen aéroport Dakar bi mais taxi yi fa daan taxi et décaré daan doon mosoo fa gis TH lan moo waral loolu parce que TH yi demone fofu aéroport de aéroport de Dakar dañ leen fay tere te ñun ñi nga xamante ñoo dëkk dans le département région de Thiès yoré TH ñun aéroport bi nga xamanté ne mooy aéroport bu de euh vraiment gis ñu suñu bopp ci côté bobu may laccé ci côté bobu nan ngeen ci mën jappalé ba lolu wara mëna am.

wala seetal leen nu ne man defal ba ñu war a mën a parqué ci aéroport bi jël seen client yi nga xam dañ leen di woo depuis la France wala Belgique wala Allemagne wala feneen. Eh, monsieur le ministre l'erreur de Sali du yow ndax Sali dañ koo daggoo ñu ne station balnéaire ñu jël nit ñi ñu dëkk ak population bi yoon amul amoon na sax forêt ku seetlu Sali bu njëkk ba amoon na benn forêt boo xam c'était une forêt classée mais yooyu yëpp mujj nañ ko jaay def koy résidence effectivement lolu fekku leen fi mais station balnéaire bi nga xamanteni mom ngeen di wara def fi ci Pointe Sarène ñu ngi leen di ñaan ngeen sécuriser ko mu wara a ci 243 hectares Kérok defé na ban koy déclassé man bokon na ci commission bi nga xamanteni ni nii ci déclassé 243 hectares ñu déclassé d'ailleurs amna sax déjà ay nit yu fa ko yu fa dëkk ñooñu xam naa am ngeen kii pour toxal leen mais liñ ñu leen di ñaan moy na ngeen ko defar noo xamante ne nii bu mu mel ni erreur bu sali am parce que ali sali erreur la amul yoon bu jógee fenn dem ba géej amul nit ñi ak euh, hôtel yi ñoo jaxasoo kon doontul station balnéaire foore amoon na fa mais fii nan ñu dimbale ngir yàlla ndax boo gisoon li la ñu jaayoon ko peut-être affaire politique la woon ñu jaay forêt classée bu baaj bu sali boobu mais bii moom sécuriser leen ko ba forêt classée bi ngeen fa war a def ci station balnéaire bi yoon yi nga xamante ne ñoo joore jóge foofu dem ba géej muy yaatu ba moom daal population bi noonu dëkk fii ci suuf station ba nekk ca kaw sécurité mën a am foofu bu baax monsieur le ministre loolu dañ la koy demandé